mais mu assasatu mu assasatu daaw sana lil baxsh wa nas wal ilmi ñu fas yéene amal ay waxtaan jëmale ko ci wàccaayu màggal daaw salaam tey nag ñu fas yéene ñëw fii ci ki suñ xam sa diine ci ndégalul sëriñ aboo xalifa suñ mun maamun ak ci mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo ko àndal ci uh, ngi waajal màggal gi uh, waxtaan yi nag ñu jëm ci uh, makaanatu daaru salaam fi taarixil muriidiyya fas yéene koo ànd ak ak sëñ maam mu xam si diine sëñ maam xam si diine nag jàpp naa ne xam nañ ko bu baax a baax ci liggéeyam ak taxawaayam ak liggéeyal yoonu murit rawatina lislaam te ñu ñëw fii ci atam bi ngir talal ko sunu micro ngir waxtaan ak moom. mu baaxee ñu jëm ci wàllum am ci yoonu murit ak maam Cheikh Anta ngir bañ guddal dañ koy ubbil bu defee ñu jox ko kàddu gi suñu bisimilah tafaddal mashkura bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi alamin wasalaatu wasalaamu wa maulana al amin al ghurri wa ala xayri xadimihi dil xablil matin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk jëli di asalaamualeykum taala wa barakaatu gannaaw bi nu santee sun borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi di nuyu di seet di eh, ci weeru tedd yu nekk ak bis waajal di siyaare sëñ abul baraka sëñ abou Mouhamad Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou Mamoun njaboot sëñ Modou Mamoun gépp njaboot ngi sëñ Gaawaan gépp dañ ci ndokkeel ñaan suñu doom àggal ci bis te la ca la ca borom digle woon ñu day caag moom <coughs> ndax lam doon bis bi laay màggal la fii daari salaam waa ju ci yooyu suy del am xayra maram yàlla nga ko suñu borom defal sëñ Gaawaan nag mi ñu waxtaanee day mbokkum Serigne Touba ci fànn yëpp. ñu bokk wenn waajur wu góor waaye muy nijaayam nag ci wet ndax soxna Anta Ndiaye Mbacke mi waajurum doomi Ibrahima aw ña la moom maam Mahram soxna Anta Ndiaye ak maam Assawaalo mi waajur soxna jaara ñoo bokk seen ñaari baay bokk benn baay kon moo tax soxna maam Anta Ndiaye maam la ci sëriñ bi moo tax sëriñ gaawaan di rek sëriñ ba noppi wal bi ko di nijaayam mu am nag ay jaglu yu bare baree baree bari ci sëriñ Tuubaa jagloo yooyu bokk na ca nag dëkk mbiri Daaru Salaam Daaru Salaam euh, Sëñ ko mooy dëkk bi Sëñ Tuubaa njëkk a sanc gannaaw bi yoonu muri soso ndax bi yoonu muri soso ci Mbàkke Kajoor ca ama asashi ci biir at mi la Sëñ ñëw Mbàkke Bawal muy ama asashi Eh, ndif sa gàtt la xam ndax Sëñ Tuubaa tarbiya la doon def doon tarbiya ak takwiin defar ay nit defar seeni xol leen la ci yàlla nga xam liggéey bi muy liggéey dafa laaj wéet te Mbàkke boo tàmbali na xumb bari mbooloo ci ay bokk ak ñuy siyaare seek ñu aju ci moom ak yëpp te ñi muy defar nag day bëgg ak wéet moo tax mu dem seek barab boo xam ne bu wéet la bu kenn mus a dëkk kenn mus ko moom mu sanc ko tuddi ko Daaru Salaam kon muy dëkk bi njëkk a sanc gannaaw bu yoon mu sanc ko Amar 1304 dëppook 1886 ci la sañc Daru Salaam bàyyi ko Mbàkke bool euh, tudde ko Daru Salaam ngir sellal bakkan yi ñi mu àndal amit am barab bu yaatu wax daan fa mën a diyaaleeg boroomam man faa tërbiya mbooloo mi te tërbiya gannaaw dafa laaj wéet laaj jaxasoo kon foofu lay gën a mën a wéet foofu lay gën a jaxasoo ak ñoom assalaam bokk ci turu yàlla yi subhanahu wa taala husna kon dafa mel ni ngir sàkku jàmm da cee tawassul ci borom subhanahu wa ci jël tur woowu mu nekk turu dëkkam bu barkeel boobu ak jublu ko barkeeloo ci waxtu xam ne fitna yi tasaaroo na ci biir réew mi ci gox yu bari ci réew mi boole kiñaanuk buur yi ak lenn ci sëriñ si gannaaw boo xam ne ñëpp dañ koo teg bët ci jamono yoo xam ne mbooloo yaa ngi fàq jëm si ci moom bàyyi ko ci gan anam gu nekk ci ci ci ci biir réew mi ca waxtu woo xam ne it daa mel ni xare yi doon am ci diggante sëriñ seek buur yeeg tubaab yi la ca la la lu ca bari jeexagutoon ndax ci diggante ñi dëkk ci réew mi ak colonialiste yi nga xam ñoo fi nekkoon ñu français yi ci lay junj ca bayit yam doon wax ne sallamani bi kawnihi salaama min kulli ma yajurru lil malama ijaa salaamatan taduma yaa salaam li yeewalal ayaali fi daari salaam su musal na ma ci nekk gim nekk di assalaam man a tudd gim tudd assalaam ci la ma musale ci lépp loo xam ne danay bijj ay yeddeel jëm ko ci man daal ñaan su ne ko yàlla nga def jàmm jox dafay sax fii ci Darou Salaam yow mi nga xam ne yaay salaam naga saxal jàmm fii ci Darou Salaam ci man ak ci njaboot gi kon demel kon baatu salaam boobu kon asalaam boobu kon demel sàkku jàmm bokk yi taxul mu tudde ko kër gi muy këru yàlla mi nga xam ne mooy asalaam ci loolu na ngay xamee ne kon bëgg na Darou Salaam nekk kaaraange lu dëgër luy aar mboolem musiba yeeg fitna yi ak nëx-nëx yi nga xam ne mi ngi bàyyi ko feneen di fa jëm si ca lay wax ba tey laka daaru rabbi wa tuuba li yakun rabbi fiihi ma taauduni ca lay waxit ne ilaya soq fiiha wa fi tuubaya fawqa allati adun min rugba min rugbaya yow sun boobu yaa moom daaru salaam yaa tuuba waaye leeral na ci ne da a ju sell ngir yima yàlla subhanahu wa taala moo tax nga gis lu baree bare bari muy lënkale diggante Daaru Salaam ak Touba cay mbindam ndax mooy ñooy ñaari bari yu ko gënal ci kaw suuf ci le temps biir kun fihima tauduni taudun ay ta iqamatin ba yàlla dogalee lam dogal nag ba loxo dogalu yàlla màng ko ba tàbbal ko ci loxo yi noon yi yóbbu ko ci suufi noon yi ñu exilé ko eh, soril ko ab dëkkam soril ko ay bokkam eh, waxtu nekk xelam ak xolam mbus sa jóg ci ñaari dëkk yu muy Tuubaa waxtu nekk mi ngi koy xaalam di yaakaar ci yàlla mu delloo ko waat ko fa mu nekk te delloo ko nekk mbégte mu ñeel ñëpp ci lay ñaan ci mat ci njëlbeenu xasi genn xasi da wax ne xasi ko xet sa cant la woon wa bashir jami al muslimin wal muslimat bi liqaa'i wa sam'i rujuhi ila daari salaam wa tuuba ajilan yàlla na nga sunu borom yàlla na nga ñu góor jigéen ñëpp ci saa bu waxtu wax ne maa ngi daje ak ñoom ak ñëpp déggal maa ngi maa ngi maa ngi dellu daari salaam na doon mbégte mbégte mu ñeel ñëpp ci lool nag lay lay ngay xamee lay feeñe taruk ak cofeelam ci suuf su barkeel su muy daari salaam waaye ànd ak bëggam koy bëgg ak la bëggee tar tar tar nga xam ne fu mu tudd waxtu ne mu koy xaalaama ka fàttalikoo ko tudd ko ñaan loolu lépp dafa dafa koy jël nag jébbal ko mbokkam moomee taalibeem ba soppeem ba nga xam ne ko dëggal ak cofeelam la ci moom taalibeem bu mu gërëm ba ku ma tel ko kóllëre muy Sidi Sidi Moxtaar Maam Seex Anta Borom Gaawaan mujj nekk ak moomeel gu sell ci moom boole ko lim ab lim bu takku nag ci ay taalibe ngir ñu jàppale ko nag ci man a sancaat dëkk ba taxawa taxawa ko ñëpp nekk ci ron ron kilifteefam ba bàyyi ko ci rexala rexalatu baxriya muy muy muy tukki bi géej gi foofe la ko fekkaat waaye jagle yi mu am ci moom e, ñu tudd ci leen bala ñoo wéyal ci darsaan bi mooy gis nañ ne bi mu nekkee Gabon gannaaw bu fa e, sëñ Mbëd Lo Dagana demee ñu fi bàyyi bari na bàyyi maam Cheikh Anta képp la kon boo demee nanga ba ko wol nanga ba wol seex maam Cheikh Anta bàyyi ko fii ànd ak Sëñ Mun Jaay Jóob su ma dem fekk Sëñ Tuubaa eh, ca Gabon ñu jëflante fa lu bari waxante fa lu bari dafa mel ni Sëñ Tuubaa daa mel ni dafa ko bëggoon a far bañ a tey ndax xëy na foofu nam fa wéeteeg nam fa mën a wéetale boroomam jàpp na daa bëgg a toog foofu mooy maam Cheikh bokk bokk ci ñi ko ñi ñi ñax ci ne ko boo deesiwut ñëpp dañ dem sawara ca la ko digg na ne ko ne kon nag danaa dees waaye waaye jiitu ji ma maa ngi ñëw jox ko lam taalifoon ca at ma ci ay xasida na ko ba yónnee ko mool yëpp ba am na yum ko ca digg danaa ñëw ci kanam eh, bokk na ci itam jox ko lalu beñ boo xam ne rasululaahi moo ci toogoon la si musaakana jox ko lalu beñ bu rasulullaahi toogoon mu barkeeloo ko doonallaahi lal baa nga woon gaawaan ba sun maam anta faatoo ñu teg ci bu mel ni jant yóbbu ko déqile fa maam Mor anta robaale ko lal boobu suuy anta kon lam ko jox ca la bokk boo ca nekkoon nag xamal ko nekk li des ci natt bi nag yaa ko yaa ko ba jox ko mbubbam ne ko mbubb mi saabu demee ba agsi bi nattu bi agsi nanga ko sol loolu ci jagli la bi tubaay ñibbisee itam ba bato bi costé ci port bi mbooloo mépp taxaw murit yeeg ko dul murit fees dell ñépp taxaw di xaar ba gaal gi taxawul ay waxtu yu bari kenn génnu gaal gi tëji ñi naan xam naa dañu nax rek xamaa boo demee ku faatu la ñuy indil boo demee nanga ko ne di xalaat ko ba yàgg ab tubaab génn ne ana seexant muy ko ñëwal nga xam ne ka la mbooloom bari bari bari taalibe yëpp nga fa waaye moom képp la ca seetee woo ko ca biir jëfante fa ak moom ba ba ñuy génn ñoo ànd génn kon loolu ci jagleem ko jagleel la bokk maam Cheikh daal dellu daal salaam na xaar ko fa booba booba dakaar moo nekkoon capitale économie bu Sénégal waaye Ndar nag moo doon hôpital officiel bi moo doon capitale officiel bi mu daal di dem Ndar nag ngir am ay ay ay ay ay ay war a def yu mu signé ak yu mel ay formalité jéegi fa ñëw Louga jéegi fa ñëw sando si Eh, fekk taalibe bi mag sëñ Sirilo Sànn ba juróomi fan ci koor gi mu àggalee fa koor gi lépp ba teg ci ay eh, ñetti fan xuma ñeenti fan dafa jógee nag jëm si Daaru Salaam jaar nag ay barab yu ay barab kër Mandoumbe ca la bokk def naa kër Mandoumbe la mujj a gonte wax na gannaaw tisbaar la fa bàyyi nag Daaru Salaam jaaraatut fenn mu agsi Daaru ci benn yor-yoru yor-yoru euh, euh, altine defe naa bu ma bu ma juumut euh, suba suba waaw bi suba gi altine la fa agsi dafa ñaar fukki fan benn ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci nu mooti kori waxtu weeru kori la fa agsi loolu mille trois mille neuf cent trois la tolloon foofu daje nag muritam ba bu sellal ba Cheikh Sidi Muxtaar dajeeg soppe ak soppeem dajeeg sëriñ ak taalibeem dajeeg mbokk ak mbokkam waaye daje boo xam ne xalima lott na ci bind ko làmmiñ lott na ci wax ko mu nekk daje mbégte boo xam ne mbégtem ñëpp la nga xam day junj ne nangu na ñaana ngam ñaanoon ca bu basee jameel muslimin jëm waxoon na nga bégal jul ñi góor jógi jégin ca waxtu mooy dajewaat ak bokk yi ak bu ñu déggee del dellu naa Daaru Salaam ak Touba day mel mbégte moo kon feeñ dafa mu yaatal ko mu saafaxa ak moom eh, ganale ko ngan goo xam ne nag mënee su ko misaal di ngan goo xam ne lam yu doon dañ di ko toxal ci diggante génération génération diggante siècle ak siècle ba jamono ji nu toll ngan nga suñ suñ Musaa Ka eh, eh, leeral na ko muy ngan gu yéeme déglu ma wax la la xewoon ca Kasashi ba Bàmba la géeyee ci géej ba ñibbisi muy nit fan diggu tabaski bisab keroog ñu naa ko jaaril Mbàkke wallaahu yadduhu ila daari salaam la Bàmba dal ñëpp ni muut doona keroog la Bàmba sotti duusi barke Daaru Salaam muy wanagaan jëm Mbàkke fukki nag ak yaar ak gëléem guy bëmb la Sidi Anta di jox ko Bàmba lii la saxal ñam ya ne beq daaru tan yaa ngi xiiroo bukk yaa ngi gaaru ba muy ay ak bés seex na tey ma ren di nit koy taxaw jox tañ ndax ñu màndi daan ne ko jaaraama mu jàpp ab jaam bés ak keroog jébbal magam borom saam daal di nag ak gileem fa daaru di la bàmba toog bëree ma waaru lam leen ciy gàtt ne su koo lim lim joxe ciy fasit ne su koo xam lam joxe cib xaalis amul ndakaaru ceeb ak marakis la tewoon na daaru ay piis la war di taxama bàmba wàccoon bii rek bi teeg mat la ya buur ya sàkkoon sooy ak baraaya lay lalal Seex Bàmba si kay kii miski lañu pompelal ba ay lampe gas la la daa jafal fa daaru leer yee gindoo <coughs> wa daaru réew ma waaru nga ne kon noonu la teral Sëñ Tuubaa fukki bis ñaar yoo xam ne waxtu nekk luy xeetu tiraanga def na ko euh, fekk nit ba muy jógee euh, ba muy jógee euh, Gabon moom Sëñ Gaawaan jox na ko ak buub ne ko soo demee nañ dem daar daar daar daar mën a nattal ma fa ak kër gu tel gu tol nangam ñu natt ko defar kër ga bu mu jigee daar saam daar mën googee la kër googee juróom benn weer ak la fi def eh, juróom benn weer lu bare bare bari xew na ci eh, ci ñëw mbaaxaan gaag ya caaju waaye juróom benn weer gëm mooteen lañ ko fi jël nag yóbbu ko gànnaar ñu jóge fa dem ci yéen ba ñëwee njaarim waaye daal kon euh, ñu xam ne kon baral la bu mu soppoon nga xam ne ñaari néew na ci xase yi fu mu tudd Touba te tudd Daaru Salaam sasali ko ci ngir bëggum ko gum ko bëgg tey toxoo gam fa toxoo dem Touba ci ndigalal boromam la ca la xam naqalte ni mi watani daari salaam waruddani laha gis nga li ma ñaanat laha moo xafen yaa salaam naqalte ni min haaj li alli tarbiya yaa xay rabbin wala alli tarqiya yow sama borom yaa ma toxal Daaru indi ma Touba daal ne yàlla na ma fa delloowaat ci jàmm yaa fa toxale ngir bëgg maa yar mm-hmm. ak yar ñi ma àndal mm-hmm. daan léegi yar bi mat na ndax ñoom seen mbir day mel ni tënk ci ay jamono ak waxtu ndax moom ci fii lay ñaan ne yàlla na ma yar mm-hmm. ndax di wax ne yar bi mat na waaw baka mu lat tarbiyati faraqini waruddani laha wa kay daka xini wa ruddani laha jësa desaat wa kay daka xini abdan xadiman maakisan fii tuuba wa ko faani bexal ko tuuba kon bari la bu mu bëggoon si maam Cheikh bi mu ko ko jébbalee it nag mu sàncaat ko gën ko feddali gën koo dëgëral taal bi yam ko joxoon it mu sóob leen ci liggéey mooy itam sóobu ci liggéey nag ci diggante liggéeyu mbay ak la caaju gannaaw bi la sànci gaawaan gee ca eh, bawal sànci yeneen gaawaan gaawaan ci dàgg ak yu demee noonu waaye gaawaan nag day mel moom la gënoon a fonk demoon ba sax dëkk bi xaw a gent waaye gannaaw bi la ko suñu baan suñu baan nag dellul daaru daaru sax na falaa lay añel soo lëggee moom ko suñu tubaa la ñëw la mu amoon gaawaan lépp fas yaag amoon ci jur ndax dem cee pël yi fa nekk maanaam lañ am ci jur lépp mu mu ramaas ko jënd ko am bitig yoo xam dafa ramaas lañ am lépp ndax xam ne waxee ne xaalis bi ay saako la woon di teg ko ci ay karos ñii war ñii di dox ñu jëm si Daaru Salaam bu ñëwee sancaat ko nag jógewaat fii ba ba ba ni mu delloo ci borom euh, nag diggante boo xam bu tiis la mooy li ko si demandé woon ëllëg yaay yaay mottali natt bi mooy mooy dem ak ségoom nga xam ne sabab ya yu bare bari la waaye daal euh, gannaaw waxtaan taxu tax ko jóg moo tax duñ ci xuus waaye ci ay tuuma la tego bañ yóbbu ko ségo bu ñu jógee ségo itam Daaru Salaam la ñibbisiwaat mm-hmm. waaye bi ñibbisee nag mm-hmm. ndir su gàtt la fi teg daal dellu ci borom maanaam at ma ci topp bam teroo rek la la la dëkkale ji borom subhanahu wa taala waaye nag mu am ay ay ay yu bëree bëri bëri ci Sëñ Tuubaa euh, Sëñ Musaa Ka inna ci lu bëri yàlla yàlla na ko sunu borom mu inna lu bëri ci Sëñ Gaawaan euh, dafa wax ne gis naa gis naa jawaab gis naa jawaab euh, ji ko sëriñ bi tontu mm-hmm. naa ko bégal bégal nde dootoo lont ca mooma at lamul xasaa idam yaa mooy xas yi jam wax moom la ko jox ci géej ga mm-hmm. ñuy da ko gëñ mm-hmm. ca mooma at lamul xasaa idam yaa yónnee ko bàmba boola làq ndam yaa ci saa naa ko ci mool yi yàlla ko yàlla bette mm-hmm. gis naa mu naa ko tagg yónneen yi nga mool yàlla na la yónneen ba feesal yomal xumul gis naa mu naa ko faaw raw nga faaw raw nga say donte donte faxoon nañu dawit du ngeen yam gis naa ko man naa mën naa ko làq ngay ridwaani ma nga tukkee fa yàlla fii diwaani gis naa mën naa ko tuuti kon nga faatu ca masasin maa la defal aayatu gis naa mu bindal ko ba gis naa gis naa mu bindal ko bataaxel moona innaka yaa sayxu minal amina a ah, bokk nga ci ñi ñi wóol ñi xam ne am nañ sécurité gis naa ko gis naa mën naa ko am nga tey bushara mbégte foo mën a toll yaa nga may siyaara boo fi dikkee boo fi dëddee kat ñoo yam loo mën a def ndigal la foofu la yam gis naa mën naa ko boole naa la ak tarxiib tàggale naa la ak lawmatan wa tarxiib mooy boole naa la lépp looy xem xemanteef waaye lépp luy ragal ak ak yeddeel tàggale naa la ak moom gis naa mun naa ko laa taxaw najawtaa la allaziina kafaru alwata mooy bul ragal mucc nga ci yéefar yi tey kawe nga sag mas féet nga kaw sag mas kon yëpp di ay ay ay jagle yu ko suñ suñ bagle jagleel Euh, ba tey ci jagle yooyu euh, ay bataaxel yu bare bare bare bare yoo xam ne sëñ Tuubaa daana ko ko bind nga xam ne ndax moom waxtu nekk ay hadiyam daa dem daa dem ci sëñ Tuubaa mu bari lu ko sëñ Tuubaa doon liggéeyloo daa ko yónni ci yu bare bare bare it bi Alxaaji Malik Si wàccee ab liggéey moom la sëñ Tuubaa digal ne ko nga dem jaale jël ma ko gannaaw bu ñu digalee suñ mbàkk bi su nekk nga marsiyal ko ci la si Moussa Kana keroog ba alxaaji monsieur moom Malick faatoo tiwaawoon kooka moo di Salik rahimahullahu rahimul Malick te boole ko ko Ridwaan fegal ko Malick keroog la Bamba yónni Sidi Anta mu dem ko jaale romb kër Bukunta ñaar fukki nag la jënd dàq yut leen ñaar fukki saakoy ceeb la boole jox leen boole ca xaalis bopp mënee fu ko lim ne leen li wacc illaahi moo bi yaaram keroog la tijaani tiwaawoon booloo naa ko naa ko na nga diina raw nga mbooloo mu doon ko xam ne bokk na ci njëkk a ànd ak Sëñ Tuubaa nee li ma am ci dara jaag alal jaag lépp da koo teg fee doon taalibe Sëñ rek eh, bokk ci ñi njëkk a ñi njëkk a seen bopp ca assasine eh, ndax bi muy ànd ak Sëñ Tuubaa boobu yoon mu sosogut boobu xewagut ci ndigal mam mam te Njaay waajuram bu jigéen wo woowee ci la sëñ Moussa ca Maam Xaar la daal di nos ruuxam nga jébbal Serigne Touba mu yor leeram nga moo jëkk fa mbiram ci seenu askan jébbal Serigne Touba niroowul ak kenn mos naa dikkal Serigne bi naa ko nos ma bënnal bakkan bi may sa mbaarik sëf ma ñu xam ne maay saggan bi yaadab yaaram yaaram du gam-gam rek saggan mbaaxaadam mos naa dikkal Serigne bi naa ko ñaas ma ma def sa bambara nga sëf ma laas ma ñu xam ne yaay law bi maa di mbaam ma doo sama doom bàyyi wa balla maam ma mos naa dikkal Serigne bi naa ko yaay borom bi day ma ñu xam ne yaa di gorsi maa di jàmba yoroo di mbal malal du moo di jàmba masan siyaara sol mbuumu xarira ma ngeen di roog samsan wasam xarira keroog la ba daal di xoot futti mbuum ma taxal ko muy tàkk musal ko mbég ma moom da caa bég seex naa ko sant naa la mbàkke baal ma alhamdulilahi lu tee ma masaa yoral seex bamba bis ak satalaam ñuy dem ci waxtu suba lay ba di ko faam keroog la keroog ba keroog ba bëgg def na fëleñ fa kanamam ak tar ba fàddi xala nguy wéy ba génn ñax ma seex bamba topp ci tanaa ko neex ma bu dee ci jagle it eh, wax na eh, si Musaa ne na gis na ci leetar yu bare bare bare bari eh, gis na ci fukki leetar ak ñeent ñu ko sëñ Tuubaa bind ma dellu wax leen li ma gis ci leetar yu Bàmba bindal seex di wax ay gis naa ci fukki leetar ak ñenant min loxom seex Bàmba lii dum lënt mu def ko ci téere bu tel bu tol nit kaamil léppi mbindam sëriñ bi seex ay kaamil seex Modou Ndiaye Diop yor na ñaari téeméer ci leetaram yu mu bind Bamba moo foor leetar bu dem day yóbbu ay hidaaya jawaab ji ñëw day yokk ay wilaaya kon ñu xam ne kon ko amoon jagleel ci sëñ Tuubaa la gannaaw bu mu rakkam di taalibeem waaye sëñ bi da koo bëggoon nag sëñ bi da ko bëggal boppam lool wax ne si bu ma sànni ko ci ab tàngoor sax bu gisee sëñ sëñ borom gaan day daal di ree moo tax bu ko ci tàngoor bu si bu sëñ gaan ne tëll ak ñëpp dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin ndax dañu xam ne da da dana wuri da ko bëggaloon boppam ba jug na ñëw fekki fekk fekk si ko gaawaan bis ndax moo ko ko digoon ñëw na gaawaan fekk ko fa gane si gane si ko fa kon loolu te te te loolu néew nañu ko sëriñ bu defal nag ñu fekk si fi nga nekk néew ñu ko defal kon nag day tegtal rek ne sëñ bi ku ko bëggoon la ku ko tegoon fu kawe la mooy kim njëkk a seexal ci yoonu murit yi nag waaw bi nga ko seexal booba seexal xewut moom lañ njëkk a seexal ma waral baatub seex am ci yoon wi xam nga suñ suñ tubaab su dafa seexal ku tudd yoro comme ko defee dañ naan yorool na ko <laughs> waaye li mu tudd seex a tax mooy seexal na mooy defal na ko lan defal seex rek kon demal baatub seex kon ci moom la jóge ndax li mu ko njëkk a defal la ko njëkk a defal ëllëg ku mu ko defal la ñoo na ko lan defal seex ñu ne kon seexal na ko rek kon yàlla na ko suñu fayal ñaan sëñ Abou Mouhamed yàlla na ko yàlla yàggal wéral ko mbooloo mi nga xam ne itam ñooy taxawu liggéey bi yàlla kàtt na leen dëgëral ne ba liggéey bi ñu àggale ko fa kaw njot bak si alxadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Mamoo ci waxtaan wu am solo woowu xam ne gàtt lool ndax lim ko jagleel ci waxtu motu ko waaye bëri na ay junj ca feese ay njariñ lool ñu am lool ci waxtaan wi ak nangu ngeen ko nangu ak yitte gi ko jox Euh, feeñal nga waxtaan wi gàtt gàtt wàccuwaay bi nga xam ne Daaru Salaam am na ko ci yoonu mooy mooy dëkk boo bàyyi xel la ndax sëriñ bi wax na ba koy sanc moog Tuubaa sanc ko ngir ab tàmm waaye sant ngir jaamu yàlla képp moo tax mu sanc ko waaye feeñal nga it wàccuwaay bi nga xam ne Maam Seex Anta am na ko ci sëriñ bi ak taxawaay yi nga xamee ne daana ko euh, am ci lislaam ji ak ci bokk gi waaye feeñal yi sabab bi nga xamee ne moo tax ñuy màggal bis bi ci mooy daaw salaam te mooy ñibbi si ganale gi nga xamee ne maam sant danu gën a sant danu gën a sëñ Tuubaa mu jógee ci tukkim boobu ca ngan nga it teraanga yam ca dam ak na mu demee ci ab taar ak na mu demee ci ay xéewal fesan na ko wax nan ne sëñ bi waxoon na ci diyaafatul muxtaari fi chawaali tashhadu annahu xabibul waali yooyu yëpp ay juñu la yoo xam ne day wane yi nga xamee ne sëñ bi bëggoon na ko ci bis boobee kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal yàlla defal la toofeex di ñaanal sëñ Abou Mouhamed mi nga xamee ne mooy xalifa si Mourou Mamoun yàlla may ko fan gudd lool ma liggéey bi mu yanu boom subhaanahu wa taala woyofal ko moom fu mu bëgg egg la mu egg ko fa di wax du bokk yi ñëwoon nañ ci. Touba muassasatu Daaru Salaam lil Bahthi wa Nashri al Ilmi fii ci kër sëñ Mamour mooy bokk ci kër yi ànd ak sëñ Mara Ndiaye ngir wàccaayu màggal Daaru Salaam gi nga xam ne fas ko amal le vingt-huit ci weeru yi nekk tamit mois de mai kon ñu ngi leen jox dig daje ci yeneen jotaay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ليكن رب فيما سعدوني